jàkkaarloo leen jambamba sumbi hasati hota Afrika adele lana kuta tolumbi kala mujizatul mujarrame yalnaka kala tabir khasata ya bina zabata ane jazir khasata في المعجزات مغرمة سبب كان يسور منسلا الوار كيبدلا لا تور مرسلا laasume waa fayantuwaatal suñu jëbal ci yow ndax li ñuy jëbale benn bool la woon sa waajur bu baax lañ ko doon def di ko indi mu daan ne ma may ni mu ne ma ko ba léegi buntu kër waa kër Cheikh Sidi Muxtaar yëpp fenn fu ne dinaa fa dugal bool léegi fa laa commencé woon ñëw ba fii war a ci ñeneen ñi da xam ne sii de la soo bàyyi ba jàppe woon lu ko raw nga jàpp moo tax ñun amuñu kenn ku dul yow lépp luñ mën a am tamit fii lañ ko jëmee ndax ñëpp a xamoon sama diggante ak sëñ bi waaye nag sama diggante yow ko raw kon wax dëgg yàlla dañoo mënta wax waaye sant rek nañ def sant nañ def bu baax mbooloo maa ngi nii nag ñoom ñu ñu ñu dama bëgg daal nga ñaanal ma leen barke Sëñ Tuubaa waaw di sant yàlla di julli Yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax li mu wax wér ndax moom digganteem ak sëriñ bi la woon te bi mu nekkee digganteem sëriñ bi tam ñu ay bokk yu jage ndax ñoo bokk Cheikh Sidil Muxtaar yàlla dogal su mosuñoo teqalikoo ci benn jamono bi sëriñ bi nekkee ba nii fu ma nekk fekk na ma fa ba ca toole fekk na ma fa bi sëriñ jógee kon bu ànd ak gone yi liggéey liggéey bu toll noonu dañuy gën a ñaaxaat suñu bopp di ñaaxaat ñëpp rek di wax ni adduna li ëpp solo ci adduna mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ci liggéeyal sëñ Tuubaa nag mooy biis yi nga xam ne ko woote nga mën jee jël sa ñàkk def ko ci def ci ay berna jox ko ay jullit ñu lekk ko dara ëpp ko ci tuyaaba kon dañ leen sant bu baax di leen yàlla te ñu xam ne ay ndaw lanu ñu gën a góorgóorlu jaayante woon ak sëñ Tuubaa suñu pas-pas bi sëñ Tuubaa dara bañ ko yàq nga xam loolu dong moo fi jëriñ yàlla yàlla boole dimbali defal ñu tawfeex ak njëggal ak yërmande di ñaanal tam suñu waajur nga xam ne Cheikh Sidi Cheikh Mouhamadou Amine Bara Mbacké mi nga xam ne amutoon lu ñu sëñ Tuubaa ñu ñaan suñu borom dot yërmande ci kawam ak um njëggal ci barsàq Mouhamad ya ndax moom li ko waroon def na ko fanam ñi naan gàtt na ñu naan gudd na fan wu gàtt mooy nit koo xam nekk ci àdduna dund ci ba jóge fi defoo fi dara loolu mooy fan wu gàtt waaye koo xam ne juróom benn fukki ak ñett nga fi di am sa tur defe naa ne àdduna bi bu ko warul tamit fu mu demul bëriwul te li ci gën a yéeme mooy comme sëñ Saliou moo waxoon ni liggéeykatu sëñ Touba la te bam ko boobu Cheikh Sidi Moukhtar nekkul sëñ Touba bi Cheikh Sidi Moukhtar nekkee sëñ Touba mu ànd koog moom ba Cheikh Sidi Moukhtar jóge ñu rawante juróom benn weer kon loolu firnde jooju ñoo koy naan bi firnde ñun nag amul na dul lenn na dul sëñ moom lañu yaakaar mooy suñu lépp soxla ñu dara ci li ñuy xëy di ci gont di ci ñaax tam ñun ñëpp ndax ay ndaw lañu yal na suñu borom boole dimbali ci daraja Cheikhul Khadim jërëjëf tam di sant Nafaatoul Bichri Bichri TV yi nga xam ne saa su ne yéen a ngi ànd ak sëñ bi feddal am kóllëre gi doxoon seen diggante moom te saa su ne yéen a ngi koy feddal yow mii saa su ne yaa ngi ñëw def nga ko màggal ga def ko nii kon lii mooy kóllëre aw fu bil hëdd inaa di kàlla mas on la ndax nit bu fekkee da ngeen jàppandi kóllëre mu bàyyi fi doom wala mu bàyyi fi ab ku mën fi bàyyi rek nga doxal ca moom loola kon la nga doon sa diggante moom wér na te yow yéen ñii seen diggante seen wér na ndax bari na ñoo xam ne buñ fi jógee seen diggante moom dafa jeex kon kóllëre dafa am ab limite yéen seen kóllëre amul limite ñu ngi leen ñaanal suñu borom lii ngeen liggéey suñu borom defal ko kawe seen njot te lépp lu ngeen def yàlla na ko suñu borom ful ba mu doon njëriñu jullit yëpp yëpp yëpp yàlla na ci jullit jëndee ko